heure ñaanga nit ku baax la ko waaye tey ba tey na nee na monsieur le maire sa kanam nga di saam dawal ay waay ka demoon ba may ko ba waaye yéen a seytaane waay monsieur le maire alama xarit alama waay yaa ngi liggéey si bandi monsieur le maire say Moussa Mbaye Mbaye Dia bari ñi fii nii man am déglu ma yéen la ma dëgg. 100 pour cent. na ma la man seen doom la ma. ka mhm. si def dara importance pour libre yi. Uh-huh. dama kaa siiwal bu àdduna yëpp gis ka. mooy dëgg uh-huh. man maa la seen ab soo siy doom fii wuy. <laughs> Eh, ah? waxal wolof jàngulaa la tubaab. wis je suis son wis. aw mi di ñëw wis naa wis. Eh, waxuma la wis. fils fils waaw monsieur le maire. je suis son fils. ton fils. ton fils aw ah. ton si mu dul gerte. boo ñaata toog fi nit nit mais déwén balaa déwén ba sooba yàlla waa dressé lu tere bi. ay ool ay ool. mais. barka Rasulullah. ab gazon ab gazon man di ma la wane ba Macky gis ab gazon. et eh, puis oto Macky da ngaa déglu. mu tey di bululu te am na ma bu war a wax nun lépp yi jot na nu am président mooy tax dina na loolu tey bi ma fi ñëwaat ba soobe yàlla ba ma fekkee mu mel nii bàyyi na ma la abadan bàyyi mbapat mbapat ab gazon la du bëgg final bi ma passé rek ab gazon waaw man ma suma daanu si gazon

monsieur le maire may man tànk rek ma ñëw si aw jàkkaarloo yéen. billaahi tey jii nii man daa mu war a may ay koppar. jàppale sax na. mais man maa ma may ba ma demee yéen day maa dóor dama leen faral la garaaw mu bàcca ma tànn fa dama ko mu bàcca ay nit di ma waxoon ñaar rek dafa monsieur le maire man maa tey amoo jëmi. amoo jëmi. Ah, ok su ma yàgg ma ko waaw. Ah. fii nii baa ñu defaree am instant bu soobee yàlla baa ñu defaree am téere dresé ka incha allah ah. billahi wallahi daa doon président. amiin waay amiin amiin. soo dresé ka ba mu ta ba nga defee déwén ba la ñëw ay bu ma ci maa soo ay tuus xam nga yaa ngi soo ay ay ay lii ut la ah. ay compassé ay compassé. ay compassé eh, eh, aw réew la de compassé nga jigéen ak a sol. ay yéen monsieur le maire soo compassé aw amadou sa nekk waa fan mu dem si kaw ah jërëjëf